jot ngeen mën a jot moo mën a xam li internet yi bu leen fàtte cloche bi de bës leen tiit mu yóbbu leen si suuf ngeen di bës de cloche bi noonu mel na genre sol kii waaw mu yóbbu la nga bokk nag ci ñi nga xamante ni vidéo bu ñëw rek ngeen bokk ci ndax Tawfekh moom fépp mu ngi si couverture yëpp macha allah du leen bàyyil dara. waaw ah, Tawfekh production moom daal lépp daa Tawfekh ni ko sëñ Mourtada Cheikh Mouhamadou Mourtada Mbacké waxee yàlla na fi yàgg te wér Tawfekh rek Tawfekh sëñ bi rek kon ànd leen nag ñun ci abonné waaw dara doon ump waaw ak Mourtada Gaye moom macha allah vous vivez tout euh, tous les euh, kii événements yi nga xam ne ñu ngi am. mais non euh, beneen fait bu am solo boo xamante soxal na le président Macky Sall moo jëm ci l'emploi des jeunes et tout cela mënul nu du génn cadre bi ba tey parce que li ñu fi waxtaanee yëpp. xew-xew yi fi amoon moo ko fi juru visite yeeg nangam sangam ba ci somme bi président génne di cent cinquante milliards. ni ma ko waxee sànq emploi des jeunes trois cent cinquante milliards yoo xamante ni le président génne na ko pour euh, ndaw yi ndax nee na je compris comprendre naa leen man di me dis que ne président huit ans mi doo ko comprendre je je me que ne président yéex ngaa comprendre sa jeunesse parce qu'on ne pas gouverner contre des jeunes maintenant gis nañ bu baax a baax xaalis boobu c'est vrai mais président li nga fi créé ci structure moo bëri y a la DER y a conseil national de la jeunesse euh, CNS CNJS il y a également hmm, euh, FONGIP pour en financement il y a FONSIS ba ci bi nga mujjee conseil bërki créé bërki dem ci conseil des ministres conseil euh, conseil boo xamante ci wàllu jeunesse si la jëm également président est-ce que structure yooyu demul ba bëri ci nopp xale yi parce que tey jii pour man aussi xaalis bi c'est bien beau nga génne ko de mais man li ma jàppoon te mas nga wax ci conseil des ministres bi nga xam te amoon na foofu au niveau du palais euh, que ni da ngay un rapport par rapport ak yenn structures yi nga xam ne c'était alloué aux jeunes ñu jox ko rapport maintenant président est-ce que évaluer woon loolu gënutoon am solo nga jëlaat xaalis di génn comme li amoon ci mbënd mi rek au lieu que ñu évaluer étude euh, def audit ci lee ñu pour Euh, plan Orsec nangam pour man aussi est-ce que du suñu xaalis la ñuy commencé di sànni nii rek ci malfraux ci ngelaw li parce que xale yi je pense que président bu fekkoon ne structure yi nga teg yëpp doxoon nañ ni ñu waroon a doxee doo dem bay génnewal xaalis wala boog booy génnewal xaalis ci beneen domaine lay doon président ndaw yu bëri problème bi ñu am mooy fan la ñuy jëlee financement naka la ñuy bindee projet naka lañ leen di encadrer lan mooy suivi bi te que. il faut pas que vous oubliez président monsieur le président son excellence que ne nous sommes dans un pays boo xamante ni analphabétisme bi moo fi ëpp doole d'autant plus que également suñu secteur de l'économie dafa extraverti et d'autant plus également que suñu économie bi se repose sur euh, sur le secteur informel et que c'est 97 pour cent de notre économie voilà dans ce secteur ñi nga xamante ji moo xam sama mbokk bool wala bu dëkk Touba wala feneen feneen xamuñu ñu bindee projet lii la xam lii lay jaay lii lay def nangam est-ce que encadrement bi war a am par rapport ak les réalités sociales nga gunge ci encadrement bu ëpp solo ñuy toog ci forum di bind ay projet ay wax ay nangam def ay pause ay kafe ay lekk fa ba suur naan bi maa ne bindi kayit rangé te du jariñ benn askan bi par exemple pour man je pense que ne équipe yi nga teg pour loolu il ne vous la bonne information wala il ne vous wala bokk il ne vous donne information Euh, fekkente ni dañ ci def clientélisme politique ñu ngi lay yàqal parce que président jàppal ne vous n'avez pas droit à l'erreur parce que vous êtes le président bi nga xam ne vous êtes né après les indépendances nekk président bi nga xamante ni tey jii fi nga jaar ci cursus amul kenn ku fa jaar également d'autant plus nekk un président issu du monde rural couche vulnérable souffrir dund le monde rural dund ah, jafe-jafe yu bëri je pense tey jii Sénégal je pense que waroon nañoo toll ci yeneen dimension que ay mbirum l'emploi des jeunes te nag l'emploi des jeunes dafa nekk lu yàgg loo xam ne pour man bi nga ñëwee dafa waroon a nekk sa priorité moo tax tey jii urgence bi nga njëkkoon a wax sa 3 avril 2012 bi ngay def euh, discours à la nation bi nga njëkk a def 3 avril 2012 mars lañ la fal avril 2012 nga ne toute est urgent parce que Abdoulaye Wade am na fu mu fu mu la bàyyee réew mi waxoon na kenn fayee ko nangam nga demaat 2018 dafa discours daal ne il e encore urgent 6 ans après de juróom-benni at. ñu nekkaat tey jii ba nga décrété woon sax l' ne atteinte de préjudice et décrété l' état comment euh, dire euh, année président tey jii la waalo gën a ay président na nga dugg ci kër koo xam ne day saxub sikkim baayam moo ko yor ba tey président na nga dugg ci kër kenn nit moo yor kër ga yëpp président na gis koo xamante nii sax ñu bëri ñu bàyyi seen jàng parce que am déception ñàkk yaakaar nga gis ki président ku dem di bala ji sax te pour pourtant bu la waxoon diplôme bi mu am da ngay tiit parce que il y a un mauvais encadrement on n'a pas repensé notre système éducatif former nit ñi jàngal leen encadrer leen gunge leen coaching ak ak ak ak monitoring problème boobu dañ ko am moo tax emploi des jeunes tant que étudier les lay les soubassements li ko sooke ak naka ngay fexe ba kenn ku ne nga identifier les besoins ñii ci njaay lañ ñëw ñii ci ko nangam nga xool ko étudier ko ba pare jàmbar ko mais boo ko deful nga tëb tëb gën a xaalis ne pour financer. xaalis bi day naa ci Mali foro rek parce que ñu bëri dégg lañ ci am ci télé yeeg rajo yi mais la bon information jotuñ ko que dëkk ca jarga jokkuloo wala euh, fongale mi xamul naka boo ko laajoon ANPEJ fu mu ne sax xamu ko wala ñi ko xama ku ñëw sax déposé nañ lu mat téeméeri demande amul suite la DER lu toll ci presque trois cent cinquante mille de demandes presque 83000 fi traité te booy xool traitement yi ñu bëri jàpp nañ ne c'est les clientélisme politique moo ci gën a nekk en favori que ñi nga xam dañoo ñëw ak leur propre projet dans ce cas de figure président vous ne pouvez pas quand même répondre aux préoccupations des jeunes tant que ces questions ne sont pas réglées da ngay créer structure yu jeex rek ñooñu di ci bénéficier wur ñu leen ci gunge mais zéro emploi lay doon te il est temps que l'emploi des jeunes soo ko réglé tamit xale ñoom vous êtes sous contrôle Sonko est sous contrôle judiciaire mais vous êtes sous contrôle à l'œil yaa ngi dégg la population ñu ngi lay yore di la bàyyi xel la population dañ la teg sous contrôle populaire nga nekk ni dañ lay bàyyi xel ils vous ont à l'œil les sénégalais maintenant nag moindre erreur duñ la ko baalati les jeunes qui sont sortis là nga wax nañ ko fi waxate ko fi c'était pas Ousmane Sonko c'était une occasion pour eux de déverser leur colère leur bile face à ce régime bi nga xam ne on a vu des gens qui sont véhiculés alors seen oto yu rafet seen kër yu rafet seen taax ay soto Dakar da nga capital da nga gis sax kër yu mel ne comme lu ñu sax lu ñu jëmbat jékki-jékki rek ne coll ca kaw nit ñi di bëgg a dégg location les gens ne mangent pas à leur faim mënuñu jàng normal ñi découragé nañ ci jàng yóbbu nañ ci université yoo xamante ni virtuel la maîtrise wuñ ko jànguluñ leen dara de le bas ci wàllum informatique ñu seede ko fa bàyyi dem ñu bëri dafa mel ne sacrifice lañ leen fa yóbbu dañu bàyyi ñi dem ba université jàng ba tas bu ñu paree lu ñuy defaat xam lu ñuy liggéey boo dee université bu ñu jàngalu dem armée y a que deux produits qui sortent de notre système éducatif l'enseignement et l'armée avec dans ce cas naka la ñu mën a amee ay xam-xam yuy xalaat ci wàllum vaccin comme li ñu dal tey ji naka la ñuy amee ci ñoo xam ne dañu xalaat liggéey dara le pays ne pas développer ci commerce jënd ak jaay kese on doit accompagner les gens l'agriculture dafa am solo emploi des jeunes Prodac bii nii déjà yaa ngi woon Prodac vingt neuf milliards coow am fi xaalis nangam sangam sa xaalis mu dul dem fi mu war a dem parce que ñi ngi koy jox ñu koy liggéey seen bopp lañ fay nekkal seen gafaka lañ koy dugal wala seen nit lañ koy jox loolu nag président da ngay décréter ba sonn mais tant que réglé woo question yooyu noonu ñi la wër problème day am. ngeen jot suñu vidéo nag ngeen mën a jot moo mën a xam li